باسم الإله ينقل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بولم بكي في تو جيل جلو جيل سنت جيل كرم جيل مسوي شيء شوني أحمل لك سو بلك يعني دخلات كسو جيل نيو أمسلو liñ doon jàng léegi di jiite ci nuyoo boobu nag Serigne Soxna mu ñu ànd ci délégation bi bokk ci di Serigne Xaadim loolu si Xaadim Mbacke Serigne Sam ak mboolem mbokk ñu fekk yëpp di nuyu aussi ñoom Serigne Xaadim ñaar Serigne Moustapha bàyyiwuñu kenn ñu dëkk fii teew fii ci turu comité d' organisation bi ak ci turu Serigne Bassirou moom big laa ko yëpp mu ne kat loolu war nga mën wax ndax lépp luñ fay def man la war ndax loolu ndax dañ ko jël ko ci programme gi ci la ci biñ def ci conférence yi programme bi biñ ci kon ñu ngay ñu bu baax di ko def itam ci tur ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñëpp di sëriñ di cheikh Mouhamadou di bëgg loolu nag ci bi ndax xikma li sëñ Xaadim wax léegi ñun dañuy témoin ndax ba mu tàmbalee ba tey ñoo koy ànd ba mu fa njëkkee teew foog naa neewoon naa la lii day fierté ci képp koo xam ne bokk na ci Sëriñ ndax bu ñu sañoon kenn ku nekk ku bokk ci sëriñ bi ñu yar la jàngal la nga dem ba yëngu ci wàllu

teewal ba sëriñ bi te mu jëfee mu jëfi sëriñ loolu mooy li am solo ndax lekk si biir taalibe bi rek yomb na waaye nag li jafe mooy gën gi si biir bi ràññee ko fa ndaw sëriñ Tuubaa ngir sa loolu moom def na ko ndax mi ngi dimbali nit mi ngi organiser li nga xamante ne bii mooy zakkat ci réew mi ndax ni ngi joxe asaka loolu commerçant yi mën nañ ci seede bir na ma ne amul benn commerçant boo xam ne at mi dana dee te joxewu asaka waaye niñ koy joxee moo des ndax kenn ku nekk da ngay beru koo njëkk a jot nga jox ko te tey jii li joxe joxee zakat ci biir dëkk bi bu ñu ko organisé woon mën naa yor ñun dool ci Tuubaa yëpp kon moom li mu def nii man tentative d'organisation laa koy tuddee te loolu tant que ak bu bu man organiser zakat bi comme ni ko yenn réew yu mag yi di di defee ci ci réew yu naan yi tant que àgguñu foofu rek zakat du mën nekk levier de développement ndax xaalis la ba doon boo xam ne dafay tasaaroo da nga day benn waay jox ko fukki junni bu weer bi dee boo dellusee day jeex tàkk bis bi ñu demee nag ba mu nekk ab institution yu ci dajale ay milliards su boobaa day mën a wëlbatiku di suuxataat li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi ñañ ko jox itam dañu suqali suqali bu wér dem ba joxe waat zakat te loolu ñoom ci échantillon bi ñu koy def. فوق نا فرنا لشي نخ واحنا في ليك نم أمنا نيو خام دون دون جن زكاة وعلي مبتو مجخوا كون سري دي دفع يلو أمسر تكوسي كسنا بروجينا خاني ممكن نبت ين نيال يالين أكل خورك بدي أوسي كيسن تنبين تام تنبي أوسي تنبو أمسر نخ بني واحد في ناس إسلامي دفع مل سنو روي خام نيو في أب أجود نيو في لوارا جنون développé woo te tey jii tudd nañ ko te mooy li boo demee réew mel Angleterre kii euh, am na fa avancement bu rëy rëy rëy boo xam ne fekkuñ ko ci sunu sunu réew yi kon day mel ne am na loo xam ne est na te ba tey ci ci ñun la lool loolu dafay delluwaat rek xaj ne ñàkk xam bi delluwaat ci organisation bi moo tax tey ñu dajale experts yi ñu def fi waxtaan bu toll nii foog naa ne loolu am solo la man li ma leen ñaanee mooy conclusion yi lu ngeen ko gën a mën a tasaare lu ngeen ko tasaare même bu ngeen ko mënee bind sax ci wolof ci caractère arabe ak ci caractère latin da ngeen ko def ngir nit ñi xam ndax lu bari ak ak xam na te fañ jëm te xamul nit yeewu ñu xam taxawaay bi nga xamante ne bii mooy mooy taxawaay bi ñu bi ñu war a taxaw bu dee ci biir Touba nag Touba bari nañ attu moom mu surtout di ngeen ko.

mais aussi ci wàllu économie foog naa tey jii lépp loo xam xamante bëgg nañ ko jëmmal war nañ ko mën moo tax expert bi ne bu sëriñ bi jëlee initiative bi lu am solo sëriñ bi nag du jël initiative bi di ko financer parce que loolu aussi du cëram waaye man na ci xirtal taalib yi nga xam ne bu leen ci xirtalee ñoom dana ko a taxawal ndax am nañ taalib yu ko mën expert ñu ngi ay ay murid lañu borom xaalis ñu ngi fi ñu ngi ay taalib yu lañu kon bu leen sëriñ bi lëkkalee nee na daa bëgg ngeen liggéeyal sëriñ Tuubaa ci lii jàpp naa ne yomb lay doon ndax moom nit ñi foog naa dégg nañu dégg nañu digal te lépp loo xam ne sëriñ bi baatam jot na ca foog naa ne barke ba dana ca tabbi foog naa ne ak ak jàpp na dana ca dana ca war a am kon ñu xam ne yoon wi am na ci aw sas dëkk bi am na ci am na ci aw sas te bir na ma ne buñ ci doxee rek yàlla mën na koo mën na koo mën na ko jàppandal ñun nag léeg-léeg jigéen dañu dàqal ci suñu xaalis day day kaan ci ba jàmbur nga xam ne li ñu wax léegi mu mu daanaka nga xam ne sax ñoom usure la ñuy def ba loolu aussi dafa dafa doy waar loolu nag foog naa ne fexoon ba ba ba yaxantu gi tàmm na ci suñu biir soldat bi nga xamante ne bii lu lu am la lu réel la ñu organiser ko ba mu ba mu gën a mën a amal njëriñ nit ñi foog naa loolu moom foog naa farata lay farata lay nekk. moo tax suñu xaalis ñu ngi félicité ci lii nga def ngir gën a tasaare xam-xam bi ba nit ñi xam ne kat finance islamique am na te yéen waa Touba ni waxee ne noonu la ko suñu sànq ñu tàmbali ne ñoo dañoo xiif am lu lew kon foog naa ñaar yooyu buñ ko buñ ko boolee rek foog naa ne taxawal dara dina dina yomb te ñu xam ne nag suñu suñu suñu warugar la kon nañ ko def suñu objectif. te jàpp naa ne buñ ci defee yitte sunu borom mën ci jàpp en tout cas am nañ euh, lool ci bi di nag delloo nuyu ñëpp di yóbbante aussi seen i xaalis am nuyoo ci monsieur le maire moom itam moom itam ndax xam ne lii am na ci cër en tant que comme ni nga wax ne premier jital de la ville mais en tant que aussi opérateur économique surtout yéen yéen war a gën a organiser parce que yéen itam intérêt ndax banque yi teg seen kaw lay dalal loolu liggéey fay koy intérêt kër goo fa joxe ba moytuwul ci seen dox lay mujj donc yooyu dafa métti waaw il faut mu am sursaut boo xam ne nag dañ naan kat lii nag quand même doy na nañ ci nañ ci jóg li ci wax léegi aussi am na solo bu mu nekk nag finance islamique ci aw tur loolu foog naa si Moussa Gadia ko wax loolu loolu aussi loolu loolu espèce arnaque la. tudde ko ko gars yi ñëw ba agsi nga nga nga leen defal beneen finance boo xam ne bokkul ak finance islamique. loolu aussi dafay dafay doy waar loolu aussi day posé waat problème mu système bi nga xamante ne bii ci la banque bi nekk est-ce que suñu système bancaire bii est-ce que mën naa permettre ñu taxawal banque islamique ci ni ko islam teg ci ay conditions tout ça c'est des questions euh, quand même yoo xamante ne bii war nañ ci ay ay ay ay ay ay réponse bon loolu moom doo ci sori ndax experts ñu ngi mais ay loolu aussi quand même euh, disons réalisé na ndax bu nekk di di di gërëm quoi waa nga nekk ci digg réew moo xam ne aussi banque yi euh, voilà nga bëgg faa indi banque islamique est-ce que mën naa nekk donc loolu nañu nañu posé euh, question bi wala est-ce que aussi bu ko defee est-ce que banque bi dana concurrentielle par rapport ak banque yi fa nekk est-ce que banque bi dana viable par rapport ak banque yi fa nekk kon lan mooy préalable yi nga xamante ne bii mooy jamais ñu war a njëkk posé pour que euh, système bi peut-être bàyyi xel ne lii war naa mën a am nee nañ waa def na ay ay changement ci ay textes